koreñ sëñ baara wax dëgg yàlla luy tukkulóor di wax gàcce ngaalaama sa liggéey rafet na ndaxte yaa ngi defar doomu aadama yi yaa ngi leen di nàmpatal si seen diine eh, loolu am na benn borom xam-xam sax buy wax ni kooku sax tubaab la Victor Hugo nee na boo ubbee daara tëj nga ay kaso soo ubbee daara tëj nga ay kaso loolu mooy wane njëriñal ubbi daara di defar doomu aadama euh, di di di di nàmpatal ki si diineem ba mu mën taxaw jaamoo yàlla loolu nag sëriñ Baara euh, bettuñu ndaxte say waajur si lañu nekkoon donc di leen gërëm yéen ñëpp xale yi nag moom ñëwoon naa fi daaw àndanteeg euh, jëm si yàlla bi Ibrahima Mbacke mi ngi sa njëgalal yàlla moom ma njëkkoon wax ni préfet. kaay ñu ànd ma présenté la maam Baara sëñ maam Baara ma ne ko ah mu ne ma kooku mu ngi gérer ay daara boobu laa ñëwee fii teew fii ma gis mu présenté ma école am bi daaram bi ma visité ko keroog ma dem ba si élèves yi nga xam ne bi sax daara yi si daara bi dañuy jàng en même temps français mu présenté ma leen keroog ma waxtaan ak ñoom ndeysaanam ba rappelé woon leen sax benn benn kii bi nga xam ne bi maam Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina moo bindoon boobu téere ma waxtaanee ak xale yi ndeysaanam bu ma demee ba dellusiwaat man na leen est-ce que lu ma leen waxoon li fàttaliku ngeen ko ñun ma woy préfet ñu ngi koy fàttali. tey jii ku ne xam na ne yoonu murit bari na lool fu ñuy tuddee ay kër Serigne Touba. waaye la ca gënaloon sëriñ bi mooy ku fa dugg fekk fa daaray alxuraan ndax sëriñ bi tey bu dellusi woon ci jamono ci misaal bari na immeuble yu ñu koy tuddee meublé ko te mën naa am du ko geesu du ko xool bu amee fenn fu ñu koy wër wala ñu war ko fa fekk mooy ca daaray alxuraan yi kon loolu moo doonoon ak bëggam ndax daf daanu wax ñi mu jaboote ne leen dee leen jàng tey jàngale di liggéey tey jaamu yàlla mu ne jàng li tax ma di leen ci soññ képp ku ci jàng day da sore ak bàyyi may ab taxawaay mu ne ku ciy jàngale alxuraan itam danga am tuyaaba ju rëy ndax lépp loo xam ne taxawaay la boo xam ne jullit war na koo taxaw ci diine lislaam jàngaleem alquran lenn féetewu ko ca kaw mu ne ndax li tax ma xam ne dangeen ngeen ca yokkute aw yiw mooy li ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngal suñu boroom wax ne téere bi dafay loo xam ne lu ko ñor la ba tax na képp ku ciy yëngu képp ku ci yëngu na nga xam ne du yàgg-yàgg ba nga am dara loo cay rëcc te bu doon commerce booy def la itam doo ca perte mukk inna alladina yatluuna kitaab allah wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma rasaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabur kon sëriñ Mouhamadul Amin yëngu bii nga xam ne yaa ngi koy def ci waar wi nga xam ne ci biir kër sëriñ Touba la bokk taxawaay bu ràññiku la boo xam ne ñépp mën nañ koo seede waaye loolu day gën a leeral ne sëriñ Touba daraam du des gannaaw mu des nag ñi nga xam ne soreewu leen tolluwaay ci wàllu ay at ñu war a mën a wëlbatiku nag jël exemple ci yow bu wóor te xam ne lii rek mooy liggéey jóg dëgmal àdduna wala nga di ko gàttandu Sëriñ Tuuba am na kenn ku mu ko waxoon ci njaboot ndax dafa xëy laajte ko ñu ne ko dafa am mbokki taalibe yu ko ñaanoon ngan mu dem yendu li leen mu ne nañ gaaw dabali ma ko ñu takk fas yi dem dabi kooka fekk ñu tàmbali ko berndeel ndaw yi ñëw sëgg ci wetam ne ko sëriñ bee lay woo mu daal di jóg war fas wi jéggi fa teraanga yaag bernde jubal si njaareen bi mu egsee tasante gi ñuy julli tisbaar bi ñu jullee ba noppi sëriñ bi laaj ne ndax agsi na ñu ne ko waaw mu ne nañ ma ko wool gaaw bi kilifa googu agsee sëriñ bi ne ko ana barab boo demoon mu ne ko daa mbokki taalibe yu ma ñaanoon kendal ma dem seeti leen mu ne ko ndax ab moos lu mat sonne de sonne naa ko ba noppi toog mu egsi te nekk ci li ngeen war a nekk rek moo ci des daal di ne ko képp ku ci nekk ci li nga war a nekk te mooy tegu ci yoonu siraatal mustaqima te bañ koo wàcc menn mbirum àdduna mu la war taxal jaral jóg duutu am ndax doo war ko na wuti loolaay jóg fekk si la mu ne kon jéem leen a tegu ci kaw yoon bi léegi nag léegi loo wax ñu ne damay liggéey sëriñ kuy def say bernde bopp sa kër ne damay liggéey sëriñ kuy tabax say kër ne maa ngi liggéey sëriñ kuy tàgg say soxna ne maa ngi liggéey sëriñ di jënd say oto ne damay liggéey sëriñ yooyu lu ci sëriñ bi am ak lu ko ci itteel te defaloo ko daara alxuraan yi féetewoo ko ca fenn kon loolu nañu ko bàyyi xel bu baax bari na loo xam ne ñu koy yàq ak pasar pasar bi bar wallaahi am na daara alquran yoo xam ne waroon nañ leen ciy gees bu baax ndax gën leen a soññ gën leen cee am na ci kilifa yoo xam ne lañ cay def ak fere kenn xamul lu mu toll ngir delloo ko Serigne Touba jukkal kon ñooñu Serigne Touba rek leen mën a fay yàlla leen fay kon nag xam naa wax wax ji du gudd ndax yéene rek. ak xam ne alquran ku ñu ci te mu suñu cër war nañoo ñëw xamal ko ne foofu la ñu mbir mi toll. suñu jëwriñ Serigne Abdoul Aziz Mbacke moom Serigne Moustapha Abdoul Aziz mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ mustafa Abdoul Aziz Baara te bis bi loxoom njëkk ci mujj ci ndigalam njëkk ci mujj ci ay jëfam njëkk ci mujj ci ci sama kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci sama ginnaaw. di sëriñ Mahmoudan Mbacké di sama maam di kenn ci ñun bokk ci ñi nga xam ne ñoo tax daara ji nekk daara ndax daara buñ fa yóbbuwut ab dong mu doon eh, ngir mu jàng fa boo bëggee jàngale doo jàngale kon ka bëgg sa daara ja dox mooy ki yëkkati doomam jox la ngir mu fas yéenee jàngal daara ji sëriñ bi ñu ngi lay nuyu te di la siyaar di nuyu sëriñ Mohamed Lo Ngaabu moom mii de 2004 wala 2005 ñëw na fii ci daara ji indi fi ay xéewal nga xam ne kon yàgg na fee teew bi fi Mouhamadou Mourtala Ndiaye nekkee fii ci daara ji ñu ngi siyaar suñu maam soxna Astu Mbàkke eh, moom mooy ki nga xam ne moo njëkk a nekk euh, président parent d'élève fii ci daara ji di siyaar Serigne Moustapha moom Serigne Alhaaji Baara Mbàkke Fàddilu Serigne Alhaaji Baara dafa doonoon koo xam ne nii kenn la ci ñun ci ñun doon suñu maam di suñu sëriñ te jàppale ñu te taxawuñu sëriñ Moustapha booba lañu ñu xamee ci ci kanamu sëriñ Alhaji Baara waaye boobu ba léegi kenn la woon ci digganteem ak sëriñ Moustapha Abdoul Baara waaye ku ma jàpp la ku jàppale la ku ma yëg la te yëkkati na njabootam def ci biir daara ji dem ba xarafa ñaanal ma fa loolu lu rëy la te it kawe na loolu sëriñ bi ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di la ñaanal nga yàgg fi te wér ba li nga xam ne moom la sëriñ alxaaji baara fàllilu yéene woon nga àggale ko ca sa sago di siyaar njabootug seex muhammadul euh, sëriñ siidul muxtaar sëriñ moodu aysa teewal fi njabootug sëriñ siid muxtaar gépp ndax sëriñ seex baara abdoulahat mi ngi fi woon toog léegi euh, dañoo am bis boo xam ne dafa xew ca njaareem ñu ne bala ñoo dem dañuy jaar fii ba pare waaye kër kër sëriñ tubaa jenn la waxi sëriñ tubaa jan la jëmmi sëriñ tubaa jenn la ñu jëmmale lépp seex muhammadan mii ñi ñu fi war a jox ay diplôme Serigne Mahmoudane moo leen koy jox ñi nga xamante ni bi tamit euh, mooy euh, bâtiment bi nga xam ne moom la ñu war a ubbi inaugurer ko tuddee ko Touba Belal ngir jëmmi Serigne Abdourahmane Mbacké lañ ko tuddee Serigne Mahmoudane moo koy ubbi loolu nag ñu ameel cant ak ngërëm ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ndax liggéey bu toll nii kenn nit liggéeyu ko ndax am na ñoo xamante ne bi ñu ngi ci biir mbaar mi di jàngoo di jonjoo ak gone yi di jàngale njël ak euh, di jàngale marax di jàngale bëccëg di jàngale guddi am na ay soxna yoo xam ne ñi ngi dëkk fii ci biir koñ bi di fóotal xale yi di ci taxaw ndax ñun togg gi yàlla def na ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax waaye ay bërigo yu bërigo la ñuy mooñ waaye soxna yi nga xam ne ñoo dëkkee Daaru Tanzil saa su nekk ñi ngi jàpp ci liggéey bi ak daayira xidmatul xàddin bi nga xamante ne bi ñoom la suñ borom dogal ñu ànd liggéey bi di sant itam képp koo xamante ne bi taxaw nga fi wala teew nga fi ci bis bi ak noo fi teewee ak ni nga xamante ne bi taxawee nga ko fi ndax lii de lu rëcc ñun ndax Serigne Abdoul Ahad dafa doon kenn ci Serigne Touba Khadim Rasoul waaye nag Serigne Abdoul Ahad Mbacké dafa doon kenn ci alquranul karim doon kennal koo xamante ni bi dafa kennal Serigne tubaa Khadim Rasoul ci dëkkam bii wan wan ñu nan la ñuy toppee Serigne Touba. wan ñu jumaa ji yaatuwaay bi ndan lañ ko war a yokkee waaye nag mu tabax université bii nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa naal fas yéene koo àggale sëriñ Abdoul mooy ki ko junj woon tabax ko bañ mën faa jàngale bàyyi doomu aadama yu bari mokkale fa alxuraanul karim ñu jàng fa xam-xam ba sama rakk sëriñ Muxtaar Mbàkke ren la fa amee bac kon lañ fa waroon a def sëriñ soxna May moom sëriñ Abdoul Ahad tàmbali na jëf-jëf yàgg ak njabootu sëriñ Soyibu ndax sëriñ Abdoul Ahad bis nii sëriñ Abdoul moom sëñ Sohibou am na sëtam bu nekk ci daara ji wala doomam di Abdoul Ahad Sylla di moom lañ ko tuddee euh, maamam di kenn di wayjuru sëriñ Mourtala moom sëriñ Sohibou moom fi la yendu léegi ñu ngi koy siyaare soxna si di am mbégte ci moom sëriñ Abdoul Ahad moom sëñ Sohibou moo fi indi woon tout tànk boobu yàlla dogal na ren la moo ko alxuraan kon daa bisu tey bi lépp Abdoul Ahad la kon sëriñ Mahmoudan ñaanalal mbokki taalibe yi ñu am xéewal ñu am sutura ñu am barke te képp ku jaar ci daara ji suñ borom taxawu la sàmm la yiir la nga doon dëgg-dëgg taalibe nekk dëgg-dëgg murit ndax ñii nga xam ne ñoo jaar ci daara ji ñi ngi ciy taxaw di yëkkati seen alal eh, ndax di wut nañ ay lal jox ñu ko ngir ci daara ji defar lu armuwaal mooy ñi jaar ci daara ji ba ñibbi seen kër ngir gën ñoo jàppale te lii ñu def ci biir daara ji yéene rek la waaye bukkut ak ak suñ yéene ndax ba nga fiy tàmbalee ñëw ne sëñ Moustapha mii maanaam boobu maaram sàkket moo fi nekkoon ak ñaari pant kon bu tollee nii ñu ngi ciy sant yàlla sant Serigne Touba waaye Serigne Touba nag dañoo sas ndax jox nañu ci ñeenti xiblay dëkk bi ñeenti pàkk te pàkk bu ci nekk mën na cent cinquante sur cent te pàkk yooyu war nañ leen a liggéey te tàmbaleeguñ leen kon am nañ sas te fii nii am nañ liggéey yoo xam ne te ni des na ci kanam kon nañ ñu ñaanal wér ak kàttan ak sutura ak bëgg Serigne Touba te di ko liggéeyal te buñ ko jaxaseeg dara di ñaanal ñaanal suñu Serigne bi Serigne Abdoulaye Ciss ndax ku ñu jàppale te jàppale ñu ndax sëñ Moustapha ba mu fiy jóge ay tout tànk lañ woon bu ñu taxaw wuutoon yiiruñu luñ nekk mu encouragé ñu jàppale ñu kon duñ mën a ak si fi tey ndax moo ñu jàppale bu baax Serigne Mahmoudane kaddu gaa ngi ni maa ngi baalu àq ñëpp wax ji nag mën naa gàtt jëf ji daa yóbbaale wax ji jëf daa yóbbaale wax ji li may moo jii taxul ma wax ko. wax naa ko màggalu Mbàkke Kajoor. wax naa ko màggalu Mbàkke Kajoor. laay feddliwaat. moom laay feddliwaat. ñaare man. ñaare man. du ma def lu ma gëmut. du ma def lu ma gëmut. lu xamut it du ko def. lu ma xamut it du ko def. boo gisee ma jël sama doom jox ko. boo gisee ma jël sama doom jox maam Baara nii. am naa daara yu bari yu mën a jànge. am naa daara yu bëree bari yu mën a jànge. am naa ay bokkit yoo xam ne bu ma ko joxee. xaj na la ma ci bëgg dana ko def. waaye jikko yi ma gis ci moom. waaye jikko yii ma gis ci moom. ak melo yi ma gis ci moom. ak melo yii ma gis ci moom. loolu mooy sabab ma jël sama doom jox ko ko. ngir jikko yooyu mu def ko ci. ndax lii muy def lu jafe la. jamono ji xat na lool. te yëngu-yëngu yi yëpp. def ci àddina. mënoon na koo def ci àdduna. waaye mu def ko ci alxuraan nag. loola mooy ndam. te mooy bëggug sëriñ bi. li sëriñ mat loo wax léegi rek. ñoo bokkoon daara ji. muy daaray sëñ sooy bu mbàkkee. ñépp xam na ñëpp xam nañu. ni mu féete ni mu féete jàngale. ber këram toog. ber këram toog. du dem fenn. di jàngal taalibe yi. lam ko jural nag. lam ko ak tànk yam doon dox. muy bëggu sëñ Tubaa rek. yaa ngi ci yoon yow maam Baara yaa ngi ci yoon wi. ba tax na. bul xëcc dara. bul yootu dara. fu lu baax nekk. fu dana la fekk si. dana la fekk si. ndax li nga nekk. mooy bëggug sëriñ Tuubaa. sunu sëriñ boobu day sëñ mat loo mii xam na ci dara mas la wuti dara mas la xëcc leen nag waaye yaakaar naa ni dund na ba àgg ci dund na ba àgg ci fu lu baax nekk fu lu baax nekk fekk si na ko te bi muy wàcc liggéey te bi muy wàcc liggéey ba wut borub julli ba wut borub julli amul nit fifteen ci amul nit fifteen ci àdduna te manqué wul dara ci bëggu sëñ Tuubaa rekk la nekkoon lii nga sax nii. kon lii nga sax maam baara. wéy ci te bañ a geestu te xam ni. foo bëgg mu àgg fa dana fa àgg. ñun nag ñun sant nañ ci bis bi sant nañ ci bis bi. Cheikh Abdoul Ahad mi ko tuddee. ak ni meloon ci alxuraan. ak ni mu ko bëggee. ndax moom. lii lu yéeme la. ndax bu ngeen gisee. may ko ci ko ci may. yàlla may ko ci alxuraan lim ko may. lépp ci sëñ Tuubaa la dellu. lépp ci sëñ Tuubaa la dellu. ndax dafa wax ne bi muy jàng alxuraan. ndax dafa wax ne bi muy jàng alxuraan. dafa am jamono yu xelam neexul. dafa am jamono yu xelam neexul. bët bu yàlla sàkk. bët bu yàlla sàkk. bind bu tooy. buñ ko bindalee bind bu tooy. dana ca yendu ba jant bi. dana ca ba jant bi so. ko mën a tari. te ko mën a tari. sëñ Alsaan Jaxate wax ko. sëñ Alsaan Jaxate wax ko sëñ am sëtu yëgal ko sëriñ bi sëñ Amsatu yëgal ko sëriñ bi. mu ni ko buy del si andi ko. mu ni si andi ko. nee na keroog bi mu jàkkaarloog sëriñ bi. nee keroog bi bi. dafa bu wax sëñ Amsatu ni ko yóbbu ko mu jàpp. dafa wax sëñ Amsatu ni ko yóbbu ko mu jàpp. ba mu jàppee ba ñëw. mu jël kaamilu alxuraan. ni ko téyeel ak sa yaari yox. ni ko téyeel ak sa yaari loxo. ni ko téere bii. mayuma la ko. jaayuma la ko. saraxuma la ko. dama la koo lebal. te danga may fay. ma mooy. fay ma nag mooy. bindu téere andil soo ko defee. soo ko defee. su boobaa. soo ñëwee. danaa la bijjanti. ba Tuuba. nee na daal di ko ŋaal. nee daal di ko ŋaal. mu nga. mu daal di fa innamaa fa innamaa yasarnaahu. mu lisaanika. taf li ci gimiñam. taf li ci gimiñam. boole koog sëñ am sëtu jaxate mu delsi boobee ma jógee ci sëriñ bi. nee bis boobee ma jógee ci sëriñ bi. bind bu tooy dinaa ko am ñaari bind tooy dinaa ko am ñaari yoon. ca laa noppee gis mbind mu ma xamul. ca noppee gis mbind mu ma xamul. ak mu ma xam fàtte ko. ak ma xam fàtte ko. moom nday joor moom nday joor. ak moom càmmoñ laa ci yamal loolu ci sëriñ Touba la bàyyi ko. loolu ci sëriñ Touba la bàyyi ko. loolee mu ko ne woon nag boo andee kaamil bi dinaa la bijjanti ba Touba mu ne ko woon boo andee kaamil bi dinaa la bijjanti ba Touba. ak àggalam alxuraan ba bindub kaamilam. loolu mooy ak àggale alxuraanam ba moo tombeeg wàccub sëriñ. moo tombeeg wàccub sëriñ bi. kaamil boobee. kaamil boobee. ko jox. loolu Cheikh Mouhamadou Lamine. loolu moo tax ma lay leeral. moo tax ma lay leeral. xaas bi sëriñ bi am. ci alxuraan. ko xaasal nag ñun tam. ñun nag ñu koy xaasal. ci barkeb sëñ Touba. ñi fiy jànge ñëpp. yàlla na leen yàlla yéegal ca loolee ne maam baara amul sa fay dañ lay bàyyi ak yàlla ak Serigne Touba sa maam rek di ñaan yàlla képp ko fi teew yàlla faj say aajo ci saahir ak ci baatin defal ñëpp ndam defal ñëpp ndam te rafet nan njort ci ni weer wii ñu nekk luñ ci ñaan sëñ Touba def